ni mu ngi ci biir mbooloo ñu ni ko ben entreprise espagnole bu wax ni terrain bi len leen jox Macky Sall moo leen ko jox mais dañu soxla woon ben autorisation de construire bu fekkee ni man naa len amal autorisation de construire bi ca Khalifa Sall ci jox ma deux cent ma ni leen waxuma la deux cent millions mais un milliard sax jaralu ma ma yàq liggéeyu Xalifa Sall bi ma ko gisee rendre ko compte mun ma boo ko accepté woon it da ngay dugg parce que du ma ko accepté parce que yow dafa am loolu président kenn yorul sa xalka daal lépp lu la war a protéger Segundo Jamnillay Filmu Sama. No quiero decir. Atokan domo kanya ano ni sila wala. Nadasan nila ako. May saksi financial mo. Ito ko sector na. Man masisal na lapag mo. Ay, ay. Ito sa ekot ng DCM Abdu. Salimay ako ng hanakot.

casa malmonuando. Düşünün, düşünün, düşünün. Dama di leen waatal ci alquran yi bu ma tuddee kaso soixante dix pour cent du peuple sénégalais du fanatisme et la vérité waaw li des nag mooy factifier l'argument naxaate yi doy na naxaate yi doy na soo suuree rek jëlee na ci yàlla yi fi jaar mu ngi ci bëtu nit ñi ku ne loo fi def rek defi na fi ci nit moo tax ku yëg rek looy def nga xam ko parce que ëllëg dafay la ku ñu fay sa bor nga ber nag la nga leer ne dafa baaxul wax naa ceeg Kërim Baasi daa ngi nii yow la yónni ci man mais wax naa ak moom Dubaay bi ma demee moom Kërim Baasi on a tous les éléments tous les éléments coow léeg yi kë xew ak négociation yeeg diir yépp mu dégg ñoom moo ne nag koo ëpp li bokk nag mënoo ko asalaamaaleykum wa mu nekkoon euh, ndaxte kon kàddu yi uh-huh. nga xam ne moom la sëñ bi yëkkati uh-huh. doon ko seedeel Thank euh, you. Well,